بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي تلسبكتاتر تلسبكتاتر خيسفو دار دي لا شين دو نو فالور نيغي لا دي لن جيار بو باخ باخ واي دي جيم نيو بيك جيار بي دي كو جيتال تي كيغا خامي مودي سيرن منتخل بشير خليل جنرال كل مريد شانكو في يال ياغ لوتي واندك وير waaye di nuyu ak ziyaara Serigne Cheikh Jëmbo Fall fi yàgg mu lool moom itam ko defee ci mbooleem këru diine yi mbokk yi ñuy ci seen émission bi ngeen safoo seen émission jotaayu koor fii ci daara ji vision la chaîne de ñu ak ziyaar bu baax a baax sans plus tarder nañu jox Serigne Cheikh Badine mu nuyoog mbokk yi dégg mbokk taalibe yi Serigne Cheikh salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh suñu Baye ne ñooy bàyyi xel daara ji vision macha allah jërëjëf sëriñ Cheikh Badiane ci euh, nuyu bu am solo boobu euh, mbokk ju dégg mbokk taalibe ji la xaar ci li nga xam ne moo di jotaayu koor ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne dañ ne suñu thème bi jàll ñu ngi ko tënkoon ci li nga xam ne moo di iman iman nag ñu jàngale woon ci jàngale mu ama ama am am solo mbokk yi ko bu baax a baax tey nag ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo di islam sëriñ Cheikh Ba lan ngay ñëw ci ñun ak li nga xam ne moo di islaam ak jàngale waaw suñu bay sama Cheikh maa lay islaam euh, lu yaatu la ndax li li mu ëmb moo bëri waaye nag li njëkk ci islaam mooy nit ki su duggee ci islaam war naa xam nan lay laabe mhm. ak yan ndox ñoom na a laabal loolu mhm. war a jëkk xam ndox nag dafa am ay façon mhm. ndox mi nga xam ne dafa bàyyi ko ci géej man laab na mën naa laabal ndox mi bàyyi ci asamaan ndoxum taw mën naa laab na mën naa ndox mi nga xam ne daa bàyyi ci suuf mu ci teen yi laab na mën naa laabal ñetti ndox yëpp mën naa laab na laab bu dee nag soppiwuñu ko doomu am soppi taw mën naa laabal waaw waaw laab laab na bu dee doomu am soppiwu mm-hmm. bu dee doomu am soppi ko mm-hmm. daa bàyyi ko na bàyyi ko ci asamaan noonu la wàccee mm-hmm. ndox boobu mën naa laabal doomu aadama soppi ko soppi a a loolu moom donc laaba mhm. bu dee daa bàyyi ko ci daa bàyyi ko ci kaw nga xam ne daa wàcc mhm. te soppiwu ko su boobaa mën naa la laab mën naa laabal hmm, lam lam dikkee noonu noonu noonu noonu nga ko jëfandikoo waaw waaw ndox moo lax li doon mën a laabal waaw mhm. mooy ndox moom boyal moo xam ne ni moom mën na su ko jëfandikoo nga xam ne kon ndox ginnaaw bi ma waxee ñett ndox yooyu yëpp am ndox tey soo jëlee am ndox soo tànkee ab soo ca rënd ba teg nga xool ndox mi ndox mi soppeekuwul ci ñetti cafka yëpp mooy euh, couleur bi melo wi ak euh, ak cafka gi subaa ndox ma mën naa laabal boobu ndox ndox mun la mm-hmm. loolu mooy ndox moo xam ne couleur ndox la yor waaw cafka ndox la yor waaw ak xetu ndox la yor ndox yooyu moo mën mm-hmm. léegi léegi léegi léegi par exemple bu fekkoon da jël ndox teg ko maanaam lu yàgg ñëw bëgg jëfandikoo ndox moom est ndox mi mën naa laabal maanaam boo jëlee ab si woon ndax teg ko fii wala ab satlam ndax teg ko fii. waaw ci deux jours pendant deux jours. wala trois jours. nga bëgg ñëw jëfandikoo ndox moom est ce que ndox moom man man laa la wax. waaw waaw ci ñett anam yi ngay xool rek. Hmm. ñett anam yi may rek. Hmm. xoolal caf ga rek. Hmm. wala xool wala wala melo wala melo wala couleur ba. wala caf ga wala xet ga rek. soppeekul. mën ko jëfandikoo. maanaam ndox loo ci mën a def tamit eh, bu fekkee soppiwul eh, eh, xet ga wala couleur ba wala wala cafin ga. waaw mën naa laab laab na. mën naa laab waaye nag. même bu taxoon sobe waaw su dee su dee sobe la ci dugg. Hmm. subaa sobe la ci dugg soppul ndox mi subaa borom xam ne dañu ndox moom. Hmm. soo amee meen ndox dañ koy sip. Hmm. soo amul ndox mën ko jëfandikoo waaye dañ koy sip sip nag mooy loo xam ne. ko defee. kenn la bindal tiyaaba kenn du la waaye soo ko soo ko soo soo ko deful nag moom dana la ñu sip. mooy soo ko moytoo dana la bindal waaye soo ko defee nag du tax ñu bind la tiyaaba waaye du la bindal loolu mooy lu ñu sip mooy bëgg nga moytu ko rek. su amee ndox kon ndox soo jël ab soo def ci ndox jël sobe dugal ci biir sobe tàbb ci biir so waaye bi soppiwul ndox mi ci couleur bi ci cafka gi ci melo bi ci xat gi su boobaa ndox moom dañ koo sib bu dee am nga meneen ndox dañ dañuy sib nga nga jël ko maanaam ndox moom dañ koy expliqué daal nga wuti beneen bu fekkee c'est possible waaw waaw macha allah jërëjëf amna solo masallah mbok yi dégg ngeen comme nim ko waxe ci walum ndox yi nga xamne moy moy moy moy ndox yi nga xamne ñoy ñoy ñooy ñooy mën a laabal ndox yi nga xamne boko boo ko naka nga koy jëfandikoo ak manam bu fekke subir na ay changement changement yoy ndax dans la mën téré teree ndox mi wala déet yakarna Serigne Cheikh ba loolu. loolu nga wax. waye ñati leer tuti moy manam am ndox comme wax naa ndox moo ne sobe da ci dugg waaw ndox moom bu dee soppi ko sooy da ko soppi moom da nga koy tuur rek bu dee sobe yi daa dugg ci biir ndox ma soppi ndox mi ci couleur bi wala cafka ji wala ci xet gi hmm. subaa ndox mi da nga koy tuur sooy nag sobe da ciy dugg waaye soppiwul ndox mi hmm. ci cafka ci couleur bi ci xet gi subaa ndox mi da nga koo sip bu dee nag la soppi ndox mi lu laab la lu mel ne suukar xam nga suukar laab na hmm. wala lem moo soppi ndox mi subaa ndox moom mën nga cee naan mën nga cee sangu saabu njàmpe mën nga jox ay ndab waaye nag doo ci maanaam. doo ci laabal doo ci doo a jàpp. doo ci mën a sangu far. doo ci laabal waaw. waaw ah, maam ndox mi. waaw ah. eh, eh, eh, ñaw ko ta laab waaye waaye waaye waaye waaye yow mun laa laaba. mun laa laab mënut a sangu far. Mm-hmm. waaye mos na cee naan nag ndax laab la ko soppi laab na. Ah. léegi léegi léegi ay xëy na am na am na ndox yoo xam ne lañuy ñuy la ñuy saf wala wala wala couleur ba ñu ba yor mook fañ jógee maanaam maanaam. waaw maanaam comme su dëkk bi ñu nekk muy Touba. Mm-hmm. tey su ndox mi fa fa mu dafa am lu mu dëkkal lu mu dëkkal mooy xorom xorom soosu mo soppi ndox mi subaa ndox moom man ko jëfandikoo ndox moom nak bu lay la ko la ko soppi ñu dëkk suba ndox mo xam nga lool ci ci baax suñu boom la lool ci tawi suñu boom la yow soppi wu suba ndox moom mom mhm. ndox mom lam moy ndax la ko soppi mu ñu dëkk uh-huh. tay bu doon ak garab da tay bu doon forage bi nga bi nga nekk yow forage bi ngay fi mu mhm. fi mu ci forage bi mu jógee mhm. dafa am gàncax gu mu dëkkal garab gu mu dëkkal garab googu di ndox mi subaa garab bu ndox moom man ko jëfandikoo nu ko sopp sopp man ko jëfandikoo ci anam bu ne ci anam bu mu mën waaw ñu ko mën ko jëfandikoo mhm. ndax lam sopp loola suñu borom loola ci tawfeex suñu borom la ci mhm. nameeru suñu borom la moo tax mhm. waaw l'essentiel ndox boo bëggee mu laabal la na nekk ndox boo xam ne ndox bu la mën a laabal la ndax ndox mën naa nekk ndox boo xam ne ndox mu laab la waaye nekkul loo xam ne mën laa mën a laabal lu ci mel ni ndox comme ni nga ko waxee boo jëlee ndox nga def ci suukar suukar xam ngeen ne suukar lu laab la waaye boo ci bëggoon a laabal sa bopp maanaam nga bëgg cee jàpp wala nga bëgg cee sangu farata boobaa du ko mën hmm. waaye teewut ndox mi ndox mu laab la hmm. am na ndox yoo xam ne nag ndox yu laab la am na ndox yoo xam ne it ndox yu laabul la waaye am na ndox yoo xam ne la leen di soppi ak caf ga yi couleur beeg yëpp. waaw euh, ci moom ndox mi ñoo dëkk. yaakaar naa loolu. neex na ci bokk jullit mbokk taalibe yi. Euh, danañ ñëw ci bokk jullit mbokk yi euh, lan mooy nan la ñuy sangoo farata lan mooy farata sango farata lan mooy sunna ñëw ci jàpp ak julli ak li nga xam ne maanaam war nañu suñu mbir sax yaakaar naa loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy liggéeyu Daaju Vision ci li nga xam ne moo di chahru ramadan mubarak masha allah tabarakallah ñu ñëw ci laaj yi laaj nga xam ne indi nañ ko fii kii nee na as asaka ak mburum koor koy génne waaw asaka ak mburum koor borom xam ne dana wax ne comme ça maanaam nit ki képp koo xam ne yaa ko dundal rek kooku yaa ko war murum koor asaka murum koor nag am na ci ay borom xam fekkee mindaan bi jógee ci ay mbokk mindaan bi jógee nga xam yaa dundal yaa dundal hmm. kooku yaa joxe asaka képp murum koor waaw hmm. léegi nag bu dee xam ne hmm. Euh, borom xam bi dañoo wax ne li ëpp ci li ñuy dund moom lay génn askan bu mu koor mhm. waaye su la neex mën ko génn ci ci xaalis mhm. ndax am na ci ñoo xam ne boo leen joxee mhm. li gën ñaari na ci def ay wuti waat ndax am na ñu ñaari kilo kilo lii war naa nga waaye daal ñaari kilo daal mën naa ci laay joxe man ñaari kilo ñaari kilo waaw na kilo liibar xam na ay li a wóor nga xam ne mu la ëpp boo xam ne lu ma jël loolu léegi bu xaalis waaw bu dee xaalis. Mhm. maanaam tey da ngay jël maanaam ceeb bi nga xam ne moom moom li ñu dund ñun da ngay xool ñaari kilo ñaata lay jar. Mhm. boo demee laaj borom biti bu ne ko kilo ñaari kilo yi ñaata lay jar mooy nangam. Mhm. nga xayma loolu ñaari kilo yooyu nga génn ko. diffuse ko ca ca ca kër ga nombre kër ga nu mu nga génn ko. yaakaar loolu mooy laaj bi ndax laaj laaj laajul li nga xam ne waaw waaw léegi nag euh, asaka mun koor ajuwul mm-hmm. jël a saako ceeb teg ci digg kër mm-hmm. naan kii lay tibb kii tibb loolu di aju ko mm-hmm. da ngay xool ñun ñi ngay dundoo rek nan nan toll nga peese ko ci loolu ci ñaari kilo ko ci ñaari kilo yi joxe maanaam ñaari kilo fois nombre yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo dina ci kër gi macha loolu yaakaar leer na jërëjëf Serigne Cheikh Badine comme ni nga ko leer leer yu am solo yi macha allah léegi kii dane bu fekkee maanaam da ngaa sa rakk joo xam ne dafa néew maanaam dafa dafa dafa amul daal ay moyens demee demeewul noonu ndax mënees na koo génneel asaka euh, ci ci asaka yi ñuy génne. waaw kooku mas na koo génne asaka su fekkee natt nga ko ba xam ne kat kii maanaam yeyoo na asaka. Hmm. ndax asaka dafa am ñu ko yeyoo. alquran tudd na ko innama sadaqatu lil fuqaraa wal masakina ba aaya bi jeex nga xam ne kon loolu dafay tudd ñi nga xam ne ñoo yoo asaka léegi nag maanaam tey exemple kooku bu dee ku ñàkk la kooku maanaam booy génn asaka man ko joxaat ci asaka yi asaka ndax euh, asaka boo génn da ngay xool bu dee fa nga dëkk xañ boo da da dangaa mën lu nekk dangaa nekk Europe di fa liggéeyee waaye am na ñu fa nekk ñoo xaw noo ñàkk sooy génn asaka donte Sénégal ñoo gën a pauvre da ngay jël faaw nga xaaj da ngay asaka da koy xaaj ñaar mhm. jël leen li jox ko ñooña mhm. jël lu yam li jox ko ñooña lépp rek nga indi ko Sénégal gi ndax ñoom ñu gën a ñàkk mhm. loolu loolu ba tey dagan dagan macha allah tabarakallah yaakaar naa bi ndax yaakaar naa mi ngi xaw a temps bi mi mi mi mi ngi xaw a xëcc ñu jox suñu Cheikh Madina maalimul Qur'an karim mu tàggatoo ak mbokk ji li ma ko talibé yi waaw di sant ñëpp rek di di ñaanal di leen wax ne euh, defuñu ay fatwa ak yooyu dañuy andi at yi nga xam ne ahkaam yi nga xam ne mhm. ci wàllum fiqhul almalik yi mhm. euh, at yi ci atte rek lay indiwaat di rek waaye mhm. defuñu ay fatwa ñaareel tamit euh, euh, suñ xam-xam na lool sun fasaxa tamit kasaalika waaye am yéene rek tasaare lislaam rek lañ jublu kon foofu rek lañuy yemoon ba beneen yoon wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf wax ju am solo jooju maanaam <laughs> ci li li nga xam ne ci lañ man rek ci lañ ci la ñuy jéem da ci jëmbali mbokk jullit mbokk taalibe yi ndax réer gi bëri lol sama genre gi mom bëri ci dëkk bi manam xamuñ seen i ta xamuñ nañ nañ nañ nañ nañ war a nañ war a jaamoo daal macha allah noonu la ñuy yëkkatee bi di wax wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin salli wa sallim ala al mukallim wa dur yahsim wa suyoi salli wa sallim ala al mutamim wa kul yahsim bilanti hay jërë ngeen jëf mbokk yi téléspectateurs et téléspectatrices bu dara J Vision la chaîne de nos valeurs sant nañ ñëpp gërëm ñëpp way leen di abonné ak di commentaire ci li nga xam ne di chaîne YouTube dara J Vision la chaîne eu Nova York